بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Basiru Mbakke xalif général di Mouride yal na fi yàgg lool te ànd ak wér comité bi saytu première édition jongante alxuraan bi ñu jagleel Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul pour le Saint Coran ñoo am mbégte di yëgle ko woote journée de sensibilisation di bésub soññe bi ñuy amal ci jongante bi ñu di ko amal ñaari fan ci weeru juillet 2022 ca juma Masalikul Jinaan ci kilifteefu sëriñ Basiru Mbakke Abdul Xaadir général di Mouride ci njiital sëriñ Xaban Mbakke miy saytu daara alxuraan yi ca Touba sëriñ Jili Mbàkke ibnu Serigne Saliou Mbàkke Xaadimu Rasuul Serigne Mame Bara xalifa Serigne Modou Khary ci teewaayu Serigne Bassirou Lo imam Masalik ak jëwriñ El Hadj yu fay représentant xalif général des ci Ndakaaru ñu di ci rendre hommage Serigne Mamor Mbàkke Falilu jiite woon daara alxuraan yi ca Touba programme 15h30 lay tàmbali ak njàngum alxuraan 16 h ci bu ñu segg bu njëkk bi ñenn ci ñoom jàng alxuraanul karim ñu wone ab documentaire ci étape yaakaar ci liggéey bi bu jeexee kilifa diine yi ak kilifa aada yi jël kàddu ñu ñaanal mbooloo mi yeewi leen muy journée de sensibilisation ci première édition grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran ñaari fan ci weeru juillet 2022 ci juma Masalikul Jinaan comité bi saytu jongante bi di ko yëgal mbokk jullit yi kilifa diine yi kilifa aada yi sëriñ daara yi ak waajuru ndongo yi asalaamu aleykum wa rahmatullah alquran euh,